ngeen jëf pexey Macky Sall ca cees bu sottee dundu gi sa Seck ca Thiès ci amoon na fi lay mujje Walf Fadjri ko wax ubbil journal bi ca conseil des ministres décentralisé gi ñu jagleloon Thiès démb bu Macky Sall dig na fa waa Thiès loo xam ne bu sottee dëkk bay gën a nice panaal ca naal yàq diggéey bokk na ci autoroute bokk na ci suqaliwaat usine bay defar ay piis di nouvelle société textile du Sénégal bokk na ci ñeenti téeméeri millions yu ñu war a dugal ci semaine de fer ga ngir capital du rail bañ a wàccati ci rail bi sànce yi ñu fa sumboon ñu yeggale ko ba ci stade ba la Sénégal ni ñu bu sottee Macky Sall dana def ba def lu raw li Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck def ca Thiès Amadou Ba ne ci journal bi na xel dal ne mboolem lu ñu diggee dinañu ko def direct fa nañu Macky Sall jël na wàllam ci sànce Thiès ya Le Soleil nañu ca naal yak nësëre bokk na ci suqaliwaat industrie chimique du Sénégal gën a baral liggéeyub autoroute bi war a dox diggante aéroportub Diass Somone Mbour ak Thiès dogal yi tukkee ca conseil des ministres ga Le Soleil nañu yamul foofee ne it liggéey bi ñuy def ngir méngale dëkki diine yi ak jamono di modernisation des villes religieuses dinañ ko a ba mu noppi ñu jàll ca Ndiassane buñ ca jugee dem ca Thiénaba Macky Sall ci ko Sud Quotidien mu sol ab westam jël kas ko ouvrier teg ca bopp ba jël bureet bi di xëcc ka diri mel ne mané bar journal bi nañu Macky Sall jël na chantier Thiès gàddul ko boppam populaire nañu moom jiitu réew mi mboolem lu mu amoon ci doole la dajale xëpp ko ci dëkkub ndaamal kajoor ba observateur mel ne ku naan ko waxate ko ndax la mu fekkoon gaayam yi naaloon ko waxtaan ca ba juboo ca conseil interministériel ne Thiès li mu soxla ci koppar ngir mën a toll na ci ñeenti téeméeri milliards ak ñeent fukk juróom-ñett Macky Sall ba mu dikkee da cee yokk yeneen ñetti milliards ñaar ya daanaka journal bi nañu ca stade ba la jëm lu jëm ci liggéeykat ya ñu dàqee ba njiit réew mi di dem ca Thiès ngir amal fa conseil des ministres ñu dem taxaw ko sikkimu ko ngir mu dimbale leen ne jamono ji sonn nañu kenn ca ñoom di Abdoulaye Sané ne waa observateur sonn naa sonn goo xam ne ñaar fukki dërëm yu ma jëndale sama doom pik ngir mu jàngi aw ma ko keneen kookit la mu wax waa observateur moo di sama jabar bërki démb la aworte ñaari dërëm yu ma ko mën a jëndale ordonnance aw ma ko observateur nañu te kooke borom kër la mi ngi toll ci juróom fukki at di wuyoo ci turu Amadou Njégéen Seynabou Njégéen présidente conseil d'administration bu petit train bleu bi doon wax naan fanweeri million yi Macky Sall joxe woon ngir ñu teeru